def nañu ko ci ci loolu itam taxawal nañu ak mbootaay goo xam ne gii bu fitna amee ci ay jàmbur wala ci ñoo xam ne ñu ngi dëkkee ci réew mi au lieu kon ñu dem ci koot yi mun nañoo am jataay mun toog su ko defee ñu gindandekoo ci seeni biir su ko defee jàmmoo am lii taxawal nañu ko ci biir réew mi gannaaw loolu itam eh, taxawal nañu eh, ay mm, loi yoo xam ne yi soppali nañ ko mu dëppoo ak li nga xam ne mooy suñu bugg a bugg a dëppoo ak ni nga xam ne noonu la suñu jamonoy doxee ci biir réew mi ñu bind ko ci ay téere yoo xam ne si séddale nañu ko te itam nag euh, lii yëpp nag li di jubluwaay ba mooy fexe nag pour taxawal ay bunta yoo xam ne yii dinañu mën a doxal li nga xam ne moo di wàlli luwaa bi mu dëppoo ak li nga xam ne nii noonu la ko buggaa ci biir réew mi te nag mu doonoon loo xam ne balaa ñu koo doxal waa réew mi yëpp ànd nañu ci waxtaan nañu ci ak ñoom ubbi seen bopp ci lii bu baax a baax te itam kenn ku ci nekk dugaloon na loxoom ci lii mu doon noonu la xam ne ba ñu ko def ba mu sottee ñëpp seen loxo ngi ci ba mu sottee mu doon mbiri ñëpp ñun ñépp xam nañu luwaa ak yi nga xam ne yii moo ko wóor ak yi nga xam ne yii moom la àndal xam na ñu itam ne lii dafa war a doon loo xam ne lii dafa war a déppoo ak lépp loo xam ne lii lu ñoo doxal la mu doon loo xam ne lii dafa indi ak dal mu doon loo xam ne lii dafa boole nit ñi ñu nekk benn mu doon loo xam ne lii dafa def ba lépp loo xam ne lii ak programme la bu ñu yëkkati ñu yëkkati ndoor su ko defee ak dal mun a am ci réew mi ak yokkute mun a am gis nañu itam ne ci wàlli diina ji itam ci wàlli aada gi lépp loo xam ne lii ay doxalin yu rafet la lépp loo xam ne lii ay jikko yu rafet la ñu taxaw ci bu baax a baax doon loo xam ne lii dañu ko dundal waaye nag dinañu fexe itam aar réew mi ba mu mucc ci lépp loo xam ne lii jikko yu ñaaw la mu muur mu mucc ci lépp loo xam ne lii ay xelaat yu ñaaw la yoo xam ne dafa war a bàyyeekoo ci biti dugg ci suñu biir réew mi e jaxase li nga xam ne mooy lu baax li nga xam ne moom la ñu fi am ñu dellu seetaan nag suñu independence. am tëralin goo xam ne gi itam noonu lañu ñu ko tëralee seet ci lan mooy ci suñu taxawaay ak lan mooy suñu cër kenn ku ci nekk ak ñun kent yu ñu booloo seet it nag li nga xam ne mooy lan lañu ñu war a def ba suñu réew jëm kanam kon ñun waa Gambia dañu doon ñoo xam ne ñii ñu a jàmm ñun waa Gambia dañu doon ñoo xam ne ñii ñu bëgg ay gan lañu ñun waa Gambia dañu doon ñoo xam ne ñii ñu yaatu dënn lañu ñun waa Gambie dañu doon ñoo xam ne ñii li ñoo wane rek mooy ay jikko yu rafet li ñoo wane mooy ay xalaat yu rafet li ñoo wane mooy yaatal suñu bopp ubbi suñu bopp ci suñuy morom ci biir réew mi ak bitim réew li ñoo wane rek mooy doxal lépp loo xam ne lii dafa dëppoo ak islaam ak lépp loo xam ne lii dafa dëppoo ak jikko yu rafet ak aada yu rafet loolu mooy li nga xam ne moom la ñu xamee moom la ñu fonk te mooy li nga xam ne lii moom la ñuy dundal bu yàggul gis nañu taxawaay bi nga xam ne bii waa réew mi taxawee nañu ko ñoom ñëpp ñu génn ànd booloo nekk benn gannaaw boo xamee bii ñoom ñëpp yëg nañu ne am na loo xam ne bugg nañu ko teg ci suñu bopp te mu doon loo xam ne lii li moo wane rek mooy ñàkk ñoo fonk li moo wane mooy dañoo jël mbir moo xam ne dañu ko gàtt te ñu toll foo xam ne nag weesu nañu loolu te waa réew mi bi lii xewee ñoom ñëpp génn nañu wane seenu naxar wane ne réew mi ñi ko dëkkee ay nit lañu ñoo xam ne ñii du ñu nangu kenn yëkkati ak muumu njaam wala yëkkati lépp loo xam ne lii nag waxtaanuloo ko ak ñoom lépp loo xam ne lii àndul ak ak teggin bugg ñu ko teg lii bi mu feeñee wane na ne réew mi am na ñoo xam ne ñii ñu bëgg seen réew lañu am na ñoo xam ne ñii ñu bëgg a fonk seen réew lañu ay nit la ñoo xam ne ay nit yi jàmm lañu te itam jàmm jooju fas nañu yéene dundal ko te nag lépp loo xam ne lii dafa eh, dundal suñu aada ak suñu cosaan fas nañ ci yéene sax am dignité boobu gis nañu itam ne li nga xam ne eh, moom la ñoo doxee ci biir réew mi fii ci wàlli politique ak yu ni demee gis nañu yokkute yi nga xam ne am na ci ci li nga xam ne mooy wàlli doxin ci ba ñu amee independence ak euh, léegi ba tax na Afrika nag gis nañu ñoo xam ne ñu ngi ci biti ba tey di fexe dem a dugal seen loxo ci seen biir lii yëpp nag li ñu ci jublu rek mooy pour delloowaat réew yi gannaaw pour xalaat réew yi et delloowaat leen fa nga xam ne foofu la ñu nekkoon te fi mu nekk nag gis nañu ne passé nañu foofu du ñu nangu dara loo xam ne lii dina ñu gëlëmal ndax gis nañu suñu yoon te itam dinañu bàyyi xel sarta yi nga xam ne moom la ñu war a tiral fexe yi nga xam ne moom la ñu war a tiral ba euh, gis ne li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg ci fi nga xam ne fa la ñu bëgg suñu yóbbu suñu réew ñu yóbbu fa suñu réew gis nañu itam ne ñi nga xam ne ñoo di tubaab bi nga xam ne ñoo euh, ñoo ñu ñoo ñu notoon ñu doon ñoo xam ne ñoom itam ñu ngi nas ay fexe pour nag lépp loo xam ne lii dina ñu ne saxal ñu fas yéene ci taxaw et bugga nag not ñu. et eh, doon ñoo xam ne itam ñu ngay jëfandikoo ay pexe pour nag lu ñu nasaxal di jëfandikoo ay pexe pour nag su ko fee ñoom ñooy ñooy nga xam ne ñoo ñoo doxal di ñu di ñu di ñu di ñu wiite fu foo xam ne foofu la ñu bugg a di ñu jëmale di ñu jëñax ci béréb yi nga xam ne foofu la ñu bugg a waaye lii yëpp nag gis nañu ne dinañu ci taxaw bu baax a baax te itam doon nañ ñoo xam ne ñun fi mu nekk nit ñu ñor lañu te itam xam ne li ñu bugg a façon dundin bi nga xam ne moom la ñu bugg itam eh, xam nañu ko. doonul nag loo xam ne lii lu ñu jaaxal la muy ñoo xam ne ñii ay noon lañu moo xam lu ñu munti wax ak lu ñu munti def waaye li ñu wóor mooy ñun li ñu bëgg a mooy samp suñu réew tabax ko li ñu wóor mooy am nañ xalaat yu rafet pour suñu réew li ñu wóor mooy am nañ yoon woo xam ne fa lañu ñu bëgg a jaarale suñu réew ba nga xam ne suñuy doomi réew dinañu am mbégte dinañu dunda dunda bu rafet dinañu dunda dunda bu yéwén te itam fépp foo xam ne fii génn nañu fa eh, dinañu leen mën a fonk kon loolu ñu ngi cee sant yàlla te itam nag ñu ngi dunda ci jàmm ñu ngi dunda ci ak doomi ndey ci suñu diggante ci suñuy biir bu ñu seetee itam dinañu gis ne eh, am nañu yaakaar bu baax ci ëllëg ndax ñu ngi xeex ci lépp loo xam ne lii fitna la ñu ngi xeex ak lépp loo xam ne lii daf ñoo delloo gannaaw ñu ngi xeex ak lépp loo xam ne lii jikko la yoo xam ne déppoowul ak li nga xam ne moom la ñu am te incha allah yàlla dinañu dimbale ba li nga xam ne mooy suñu xelaat ak li nga xam ne mooy suñu yéene pour far faa far yéene faa yóbbu réew mi incha allah dinañu ko fa yóbbu te itam nag su boobaa duñu am benn rëccu. ci li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxawee te incha allah yàlla dinañu dimbale ba lii nga xam ne moom la ñu bugg e ñu àgg fa bu yàggul gis nañu soppali goo xam ne gi am na ci waxtu yi nga xam ne ci la liggéey te itam nag bi nga xamee ne lii am na gis nañu e, li nga xam ne mooy doom aadama yi pour nag ñu mun a fexe bu baax a baax pour su ko defee nag ñu mën a fexe pour nag li nga xam ne mooy jox eh, seen borom.